مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tey ñu ngi ci bunt bu am solo muy jihaad muy xeex ci yoonu yàlla waaye jihaad mbokk yi am na charte waaye jihaad ndeke yamul ci xeex rek waaye bakkan sax mu am na jihaad ndey ak bàyyi yonte bi nee na toppatoo leen a ngi ci diine nga aar ko jihaad a ngi ci moo tax yonte bi di téere bi mu Muhammadu si di jàng bunt bi ni raat tiital na xulubul ada xolu noonu yi an ba u biasatihi dégg nga xibaaru yónneem ya kandab atin aj falat xuflan minal xanami nee na ne yuuxoo ci àll baay ma yëpp tiit neen Seydina Muhammad ba mu ñëwee noonu la euh, yéefari tiitee moo tax ma zaala yalqaahum fi kulli muctarakin xata xakaw bir xanaa laxman ala wadami nee na mu day dem ba fu mu dajeek ñoom rek daggate leen mel ni yàpp wuñ teg ci kaw taabal waddu bëggoon nañ alfiraara fakkaadu yaxbitoona bihi demoon nañ ba bëgg a daw ñoom yéefari doon nañ ñee sax ca guerre ya ashla ashalat ma al aqbaani war raxami nee na fekk ceeli di diri ab loxo akub tànk ñu ñee tànk ba ak loxo ba nga buñ sañoon dee noppalu ndax métti yi ñu nekkee tam di la yaali wala yaduruna addataha guddi yi doon romb waaye xamuñu li mu guddi yi ndax méttitu xeex bi maalam takun min la yaali ashhur xorom yi lu weer ya xam ne weeru araamal nañ ko ca xeex rek la ñuy jàpp ndax mooy seen noflaay kaanama diinu dayfun xalla saaxatum dafa mel ni diina daal gan la gu ñëwoon ci seen ëtt ba bi kulli xarmin mu ànd ak bépp jàmbaar xari mi ku buun meneen laxmil adaa ci yàpp na buun mooy ku gëj a lekk yàpp nee na loolay xarim ya jur baxaral xamisin fawqa saabihatin nee na da doon diri géejug juróom nekk ca fasu naaru góor géejug juróom nag ci geer dafa am lu ñu tuddee maqalama ñu ne ci kanam am ñu ne ci ndeyjoor ak càmmoñ ak ginnaaw ak digg bi mu nekk juróom nag bu ñu ci kanam attaqué taanu ñu ci ndeyjoor dem ñi càmmoñ dem ñi ci bi dem ci ginnaaw soog a ñëw muy juróom yooyu moo demoon ni baxaru xamis min kulli muntaribin lillahi képp koo xam dafa pencoo ngir yàlla muxtasibin mu yaakaar tuyaaba yestu muy songe bi mustasilin ci jaas yu faagaagale li kulli mustalimi ñeel ba jaas yu aji boobe xataa xadaa xëdal ba mujj millatul islaami yoonu diine waxiya bihim min baadi xurbatiha mawsulat rahmi diine daa mel ni jàmbur lawoon waaye léegi am na mbokk ndax Seydina Muhammad mooy mbokkam te mi ngi koy aar makfulatan muy lu ñu garde abadan min xayri abin mu am baay ju wóor muy yonante bi wa xayra baalin ak euh, jëkkër ju wóor te mooy yonante bi falam tay itam cagawul walam ta imi jërimul caga bu ñu ko waxee ci awalaf nag mooy ku jëkkëram dee waaye ñun ki ñu ko tuddee du kooka waaye jërim mooy ko baayam de bu ci ci xar la mooy ku yaayam dee yaayam dee bu dee ci njanaaw yi la bu baayam dee wala bu njaayam dee jërim la xumul jibaal ñooy doja fa sallaajal musaadimahum ña doon xeex ak ñoom mazara aw lañ la a lañ gis min hum ñoom min kulli mustalimi ci bépp guerre wa sal laajal xoney ni guerre xoney wasal badran laajal badr wasal uxudan wala uxud nee na fu xat min xeeti day lahum addaha min moo gën a waxam moo gën a sax tar ak mbas al musdaril biit mooy ña doon rocc jaasi xumran mu xonq baadama war a ginnaaw ba mu dalee mi na adaa ca noon ya kulla muswaddin mi na lamami ci karaw gu ñuul gu nekk rek bu ca jaasi ci dalee xonq wal kaati bii na ñoo doon bind bi sumril xatti ca jënga ca dégg nga xeej yooyu nga xam ne waa xat ñoo ko defar maatarakat bàyyiwul aqlaa moom seen xeej ya xarfa jismin benn araf xayra mun a ajib loolu dañ ko def tomb shaaki silaaha ñu ñëw ji jaasi la woon lahum sima am nañ ay mandarga yoo xam ne tuma yi sum jege leen doon xàmmee waaye nag wal war du nee na fleur yem taasu dana jeq ko bi siima ci mandaga ali salami ci salam tux di doon na gindi ileeka ci yow réexu réexu nasri nasrahum nee na ngelawal ndimbal daal moo lay wan ne julli ñaa nga fële fa tax sa bu zahara fil akmaam min kullakam yi nee na jàmbaar joo gis day mel ni fuleur bu nekk ci kaw kàmboot ndaxtaar ak jàmbaar ak sañse ka annahum fi zuhuri xayli nabturba neen dafa mel ni ay gàncaxu euh, tund lañ ngir dëgër ca kaw fas ya min siddati xasmi dogu gaa tax nag laa min siddati mi waaye nuxura taxul ak derga leen di téye taarat naaw na ak dem na xulu bale adaamin ba sihim faraqan nee na nooni dañu tiit ndax jàmbaar yooyu fa maata fariqu baynal bahmi wal bahmi doo mën a xàmmee sax yéefar bu mag ak yéefar bu ndaw wa man takum bi rasulillahi nusratuhu in talqawul usdu fi ajaayib mi taji mi nee na képp koo xam ne yonte bi nga def sa wéeruwaay bu gaynde dajeeg yow ci àll bul daw bu reculer neel yaa Muhammad taxaw jàkkaarloo moom boo ko soggee du la daan walan tara min waliyin gayra munahadimin waaye nag bihi wala min aduwin gayra munqasimi nee na doo gis mukk koo xam dafa méngu Seydina Muhammad lu dul am na ndibbal waaye doo gis ko wonoon lu dul ma nga nekk ku ñu dagg ku ñuy waaj alak axalla wàccee na ummatoo xeetam fi xarsi millati ci yoon ci kaaraanga yoona bi ka lay si xallal ashbala bi ajami comme gaynde goo xam ne dafa wàcc ay doomam ci ab àll di leen garde kam jaddalal ba na mu daaneel min jadilin ci kuy méngoog moom waaye bihi wakam xasamal burhan min xasami bëri na layam yi daaneel kuy war bëre kuy jéem a dàggate alquran kafaa ko doy na bile almi ci xam-xam mi ne ummi mujizatan nee na doy na sëkk rek mujiza am xam-xam nekk ummi yi waaye foofu jaahiliyati ci jamono jaahiliya wa ta'dib fil yutimi ak itam am yar teggin te amoo bàyyi jula yar ne loolu jar na tiital jan na sant yàlla kon fexe ba am baay joo xam ne yaru fexe ba am diine fexe ba am xam-xam jar na lu yàlla àtte Seydina Muhammad ci la rey woon yépp yàlla nañu ko yàlla defal ba ñu mel ni moom ci bi yaahi seen wuju almi shuhud kon loolu mooy bunt bi mu ñu yàlla yóbbee ëllëg ak jàmm nag insha allah rabbi ñu dem ci beneen bunt bi ci topp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu مولاي صل وسلم دائما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 الفريقين من عرب ومن عجم